salaamaaleykum wa rahmatullahi tey euh, ñoo ngi fii nag seet si kenn ci mën naa ne ndaw tuubaa dëkk Touba di doomi Touba présentation xam naa ne suñ ko doon def fi la ñuy fanaan waaye dañuy daal di dugg ci li nga xam moo di waxtaan bi tey ki ñu seet si mooy ki nga xam moo di Alaaji Bassirou gay loom social ndax euh, fi mu dëkk moo wax ko waaye fi mu dëkk ñoo ko wax sëñ Bassirou ginnaaw bu ñu la nuyoo ñu ngi lay jaar ci weer bu tedd bu sell bi nga xam ne mooy weeru koor bi jërëjëf euh, Serigne Thierno maa ngi lay nuyu yow ak sa caméraman suma xarit bi elaaj mbay Mbaye di jiital di wax euh, auzu min mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bu ñu sante yàlla bu baax julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi ñaanal xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir suñ borom yàggal ko fi loolu te mu ànd ak wér ñaanal xalif général des Baye Fall suñu boroom yàggal ko fi kàttanal ko ba moom it mission bi nga xam ni mu ngi ci nekk di ci liggéey liggéey bi am solo suñu boroom kàttanal ko ba man ko àggali. ñaanal suma sëriñ Cheikh Ahmadou Rafa Mbacke falilu suñ borom kàttanal ko yàggal ko même que sëriñ Baara Doli suma maam di ko ziyaaraat bu baax suñu waajur woowu fi bàyyi ko muy soxna bu songom bi yaay ci sëriñ Cheikh Abdou Mbacke Baara Doli euh, ñu koy ñaanal fa mu jëm gënal ko fi mu jóge woon. te mënees na ci rafet njort ndax ku xam sëñ baaru duli xam ko ci maandu gi ku xam sëñ baaru duli xam ko ci dal gi ak diine ji kon kooku ku am ngërëmam rawatina moom mu amoon ngërëmul sëñ fàllu te daanañ wax ni ku am ngërëmul ku ñu gërëm am nga ngërëm kon donc xel man naa rafet njort ci moom rawatina ci weer wi mu dem ñu ngi koy ñaanal njaboot gi mu fi bàyyit suñ borom teg ci loxo bañ yàgg koo ñaanal di ñaanal mboolem umma islamique bi ak mboolem seeni internet jërëjëf Thierno. Euh, Alaaji Mbassine xam naa dañuy dugg ci waxtaan wi directement ci li nga xam moo di koor gi ak même lu jutuwul sax lu sax yaa ngi ci wàllu social social bi nga xam ne moom la war a amal rawatina fii ñu nekk ci dëkk bu sell bi di Touba ci wàll boobu lañ bëgg ñu dikk. waaw Thierno xam nga suñ borom dañuy faral di wax ni mayewul dafay able ndax tey fii ma toog di wax. suñ borom dama abal kàttan gu ma mën a tooge wax ndax jamono bi may toog di wax am na koo xam ne ñu ngi koy yàpp ci oto di yóbbu hôpital kooku mënul wax jamono bi kooku di dem hôpital biñ koy entrer di ko hospitaliser am na ku ñuy dugal ci keesu néew di ko yóbbu ca morgo ba te loolu yëpp kenn ko def kooku ko def mooy jël nit def ci moom loo xam ne da ko war a bokk ak askan wi loolu nag bu fekkente ni yow xamuloo liñ la defal lan la ba tax nga jàpp ni comme ni ko olof yi waxee dañ naan la nag waa ngi nii paaka baa ngi nii loolu bu la doyulee ba nga war na béjjën ya biir bu toj moo ciy topp loolu mooy am ba pare fàtte social te Touba fa nekk dëkk boo xam ne bi fi sëriñ bi di ñaan yaakaar naa ni ñaanul pour kenn nit ñaanul pour ñaani nit te sëriñ bit bu ma nee Touba képp ku di murit aju ci Touba rek fa nga nekk mën nga ko tudde Touba kon fépp fu murit nekk war naa mën a gëm ni social def lu baax ak jaamu yàlla dafa war a nekk ci yaramam doon deretam doon ndaxam doon ngelaw li muy noyyi ndax bu ñu xoolee ci suñu kilifa yu baax yi jiitu yépp dañ daan leen xoole sëriñ Touba ku ci nekk am na empreinte boo fi bàyyi ci wàllu social tàmbale ci suñ Modou Moustapha ba tey suñ Muntaxa mi fi ne ku ne yaa ngi jëf ci social loolu nag su amee dama jàpp ne kon ñun ñoom royuwaay lañ war a doon ci ñun te ab taalibe nag dara waru koo ñor dara wërta ne ci moom lu dul roy ab sëriñam sëriñ Muntaxa nag suñ borom du ko teg xilaaf ak sëriñ tubaa teg ko ci bopp bi pour mu jàngal doomu aadama yi ak taalibe ndax ku ne xam na ni sëñ Muntaxa ak taalibe képp a ne ci moom buy wax nga sentir ni muy waxee ci sëriñ tubaa da ngay xam ni kii sëñ tubaa rek a ne ci moom. te ku ne ci Sëriñ Tuubaa ne ci yow jàpp naa ni ni muy def rek nga war a def dimbalee social ci xam social ci ay digleem social ci jaamu yàllam mais social ci wërsëgam loolu nag su amee dama jàpp ni war nañ ko roy kon fii ci Touba damay lancer un appel à population ci ñi nga xam ni comme ni ko suma benn kilifa daan waxee njañ mbay da ngay wax ak nit mu ni bi maamam di wàcc fii ay sëngalam fii la ma fekk suñ borom jox la ay sëngal wàcce la ko fi bi ngay ñëw ñu lay dagal terrain dañ ne la xottil ba doyal kenn du la laaj dara ñu may la nga dëkk samp sa sëngal tey nga dem ba suñu dëkk bi ma ne la gan Serigne Touba wuy si la nga tabax say immeuble am say magasin wala nga am say bien un peu partout bis bu set nga mën a dugal ci sa compte bancaire 3 millions yoo xam ne fekk at mën nga ko bañ a doye dara te au même moment yow bu dee étage nga tabax yaa ngi tiim koo xam ni booy sangu bu la neexee gis ni moom fa suturloo amul toile amul toiture amul dara nga gis koo xamante ji suy sooy sóor sa wala yow booy féexlu moom buy sóor reeram sañ ngaa xam ne ne ci cinam nga war caa mën a jàpp ngir sëriñ Touba war caa mën a jàpp ngir ëllëg li nga war a fekk ci sa bàmmeel dama jàpp ne loolu ku mu ku ci bàyyiwut xel am na lu des ci yow te sëriñ Saliou nag da daan wax naan nit ñaari biir la am biir bàmmeelam ak biiru boppam biiru boppam nag su ko bàyyeeg suñu borom suñu borom a cay def la ca war a ne mais biir bàmmeelam yow doomu aadama bi yaa fay def la nga fay fekk ëllëg pour dunde ko kon dajale bi amul njariñ man gisuma njariñul dajale alal ndax dajale dajale gu metti goo xamante ni yow da lay leer ne xamoo ndax di nga fekke sa suba kooku gëma di yàlla la duma ni nag nga am lépp def li non mais saa boo dajee koo xam ne gis nga ni kii saw ñaq war naa mën a dem ci moom ngir jëmmi yàlla nga làmb ko defal ko wàññiwul dara rawatina nag weeru koor wi ñu ne muy weeru dimbalante may lancer un na ñu bàyyi xel ñi nga xam ni seen loxo jotul seen ginnaaw nañu bàyyi xel ñi nga xam ni dañu nekk ci sancaan yi te bu timis jotee galaas am na ñoo xam ne buñ ko naanul dina metti ci ñoom ñoom courant àggul ca ñoom am na ñoo xam ne mburu buñ leen fa fekkul dimbali leen pour ñu àgg fañ koy jënd dana metti ci ñoom kon képp koo xamante ni da ngay xëy si ci biir dëkk bi sooy dellu donte da nga naan naawut ñaar fukki kilo yu mburu am ñu ma ko jagleel naawut wut juróomi kilo yi juróomi bagi glace am ñu ma ko jagleel loolu wàññiwut dara waaye li bon mooy jàpp ni li nga yor yow rek yaa ko moom loolu amul solo ñu bàyyi xel aussi daara yi ndax daara alxuraan yi nañu xam ni li tax sëriñ bi sancoon dëkk bi ñoom sëriñ si rek a ci nekk ak daara yi ndax gone gu amagul benn bàkkaar suba ba ngoon jot mu xëy di jàng alxuraan toog ci benn barab yëre tilim nañu leen jàppale daara yi ak ndeyu daara yi nañu wut ay saabu yóbbu ci daara yi ngir ñuy fóotal ndongo yi nañu wut omo yóbbu ci daara yi ngir ñuy fóotal dongo yi nañuy jàppale daara yi dongo yi ci ab dund ngir dimbali sëriñu daara bi. macha allah jërëjëf euh, kàddu yi xam naa rafet na loolu ab ubbi la woon boo xam ne ab euh, parenthèse la ñu koy waxee. Mm-hmm. waaye nag ñu dugg ci li nga xam moom moo di euh, actualité mooy ku ne xam na ne yéen yaa ngi woon ci yi nga xam ne moom parti allié yi ñu koy waxee. àndoon ak nga xam nekk tey njiitu réew mi président Sall. mais mm-hmm. est-ce mën nañ xam jamono ji ak mu doon ni sa tolluwaay ci politique. waaw jërëjëf euh, comme wax nga ci domaine politique parce que balancé waat nga question yi euh, dañuy profité di féliciter son excellence le président de la république Macky Sall ndax bërki démb képp lañ doon fête suñu fête de l'indépendance muy 63e année bu anniversaire Sénégal bi mu amee indépendance ak léegi. alors de 1960 à nos jour le président Senghor jaar na fi le président Abdou Diouf jaar na fi le président Abdoulaye jaar na fi tey le président Macky Sall nekk fi alors bu yàlla dogalee nag ñun ñu dem ba bokkaat ak moom di liggéey ci wàllu politique gis li muy def fierté lañ ciy am ñun parce que bu ma nee bokkaat ak moom parce que président Macky Sall ñoo defandoo PDS jamono bi muy nekk. di renouveler les structures du parti boobu ñun ñu ngi ci UGTL bi di liggéey ma àndoon ak sëñ Bara Dolly en tant que président de la fédération PDS de Touba. tey Macky Sall bokk ci ñi nga xam ni ci bilan président Ablaye Wade lañ ko mën a dugal ndax il a euh, fait il a réalisé parce que Senghor bi muy jot réew mi boobu ñu ngi door a jot indépendance mu ñëw fexe ba nit ñi am ak déggoo pour mën a am benn administration alors donc euh, bi loolu amee. Abdou Diouf ñëw Abdou Diouf bi mu ñëwee il a fait des réalisations il a fait une ad il a pu installer une administration forte mais sans réalisation et bi Ablaye Wade ñëwee Ablaye Wade non seulement l'administration daf ko rajeunir ay gone nekk ci di liggéey mais avec des réalisation mais ci biir réalisation yi bu ñu fàtte ni Ablaye Wade waxoon na ko xaal bu ne ñam naa ko mais xaal bu mel ni Macky Sall maa ngi koy door a ñam parce que moment boobu tous ces chantiers étaient à terre mais bi mu nommé Macky Sall comme premier ministre Macky Sall commencé liggéey Sénégal ca la waxee woon ni xaal bu ne ñam naa ko mais xaal bu mel ni Macky Sall musuma ko ñam kon bu ñu jàpp ni Macky Sall de 2012 jusqu'à présent la commencé liggéey Sénégal non non non Macky Sall presque 2007 2006 2007 bi ko Abdoulaye di nommé premier ministre comme premier ministre ci la chantier yu bari nag génn mu def ci liggéey bu am solo kon bu yàlla dogalee tey ma nekk ak le président du Diagne Fada en partie mooy LDR Yeesal ma koy nuyu au passage moom it ci taxawaayam alors ñuy jàppale le président Macky Sall gis li muy liggéey mais fierte la ci ñun honneur la ci ñun pour que ñun ñu war a mën a taxaw jàkkaarloog askan bi assumer ce que le président Macky Sall est en de faire pour le Sénégal ñi fi jaar ñëpp kenn amu ci woon chance doon président Union africaine président Macky def na ko période bi mu koy defit bu ñu fàtte ni période boobu dafa tombeek la guerre de l'Ukraine taxaw mais mu déplacé wu dem rencontrer Poutine loolu nañ koy boole ci bilan Macky Sall pour que céréale bi mën a ñëw Afrique pour ñu bañ am jafe-jafe au même moment jamono boobu nit ñëpp kenn ñi muy wut jël avion di dem il a survolé les airs pour dem rencontrer Poutine waxtaan ak moom ba yaakaar naa ni guerre ba lam daan tar tar tar am na ci loo xam ne mën nañ ni dafa tisati Afrique parce que il était à la tête de l'Union africaine ñu ko ciy félicité mu mel ne loolu lépp ci bilan ki nga xam moo di président Sall ni nga ko waxee ñu duggaat tuuti ci euh, fête bi barki démb gis nañ loo xam ne ne innovation yu bees président Sall mën naa ne sax organisation bi gars yi ne nañ lu bees la mm-hmm. gis ay souvenirs yoo xam ne nii Senghor Abdou Diouf président Wade beneen bi mooy seen mbokk yeneen yi féete ci gi nee na yéen da ngeen faa toog di xuppee wane ay drone yoo xam ne ni ngir leneen quoi noo xam nga Thierno man dafa am loo xam ne dama koy regretter te it muy loo xam ne ñëpp war nañ ci tiire ay leçons. parce que ce Sénégal là nous ñu jël coupe d'Afrique Sénégal jël ko l'équipe nationale est une équipe nationale non pas une équipe nationale pour les partis au pouvoir non une équipe nationale pour les opposants non pour ceux qui ne font pas de la politique mais c'est une équipe qui est nationale pour tout le Sénégal ñu jël coupe d'Afrique ñu jox leen invitation ñu ne dañuy boycotter muy benn. deuxièmement tey ji lu toll ni fête de l'indépendance nga xam ne tey bu dul loon indépendance boobu tey kenn du fi sañ a taxaw naan da ngay doon opposition wala da ngay doon opposant pour bëgg am réew ñu invité la ci fête de l'indépendance bi nga waroon am grandeur bu toll ni ñëw toog nit ñi gis la xam ne yow mi kat Sénégal ñor na la. est-ce que invitation yi tardewul xam nga même bu tardewul dama ni uh-huh. même bu tardewul simple coup de fil war na mën a tax nga xam ne lii da nga cee bokk gis nga nit saa boo demee ba loo moom luñ la boole. ak loo boole sa bopp jaratul ngay doon dara ci loolu ci ci dëkk boobu. mais xamuñu luñ xamuñu sax ñoom luñ bëgg. xoolal ma ci ñoom ñi nga pour wax la ni la xamuñu luñ bëgg xamuñu fu ñu jëm xamuñu lu ñuy def bi ñu defee élection locale ak léegi ça fait combien d'années wax ma ci ban maire moo ci def ay réalisation phare durant les quatre-vingt-dix jours yi ñu leen may pour ñu war a def la gare la gestion axée sur les résultats pour ñu war a présenter à la face de leur population que fii lañ jóge fii lañ jëm amu ci kenn ku ko def. demal à Ziguinchor man quand j'ai vu le les les les travailleurs là de la mairie di sol ay mbubuy xonq di déplorer le comportement de leur maire fantôme mais je ci suis ni mais ñoom danañu xam ni dañoo juum. mais ak ak ñi nga xam ne ñoo fal maire yi nga xam ne ñëpp c'est des c'était des populistes ce ne sont pas des politiques mais c'est des populistes wax ma nag ban dëkk ci Afrique moom nga gisoon ay populistes incarner le leadership wane ni ñoom mën nañu def. ba waa réew ma jox leen ñu def fa deux mandats amul. Ah, mais ñoom am nañ droit bu ñu leen woowee peut invitation yéex a dem am nañ droit ba ñu. Ah, parce que le Sénégal nous appartient à nous tous. mais demain Macky Sall bu jeexalee mandat bi ba jeexal beneen mandat bi ñu jëmaat bu cinq ans mais après day dem mais les hommes passent et les institutions demeurent raison pour la laquelle ñoom ñu bañ a nekk ci seen. yi nga xam ne kenn je ne sais pas lan la yow bu tayee nga wax lii bu subaa nga wax lee su tayee nga wane maanaam nga victimiser wu yooyu yëpp dafa dem ba mujj gi finalement dañu changer xar kanamu réew mi mais nag les gens intelligents les gens yi nga xamante ni ils ne pensent qu'au devenir de leur pays ñoom xam nañ fi ñu jëm ak le Sénégal d'ici décembre 2023 le Sénégal war a dugg ci une économie pétrolière et gazière mais réew moomu danañ ko jox gone yu amul benn background en politique réew moom danañ ko jox xale yoo xamante ni tojoguñ ci nen mais réew moom danañ ko jox ñoo xamante ni génn leen dimbali ma rek la ñu xam ñoom ñëpp bërki démb bi leen gone yi naxee ni leen kaay leen na ngeen di porté ak ñun combat mais fan la mujj mais dañoo làqatu ci benn boit ñu génn leen rek ñu ni nañ leen dem daje ji xaw ci ci ci ci siège frappe journaliste yéen seen morom yi PRP bañ noo PRP bañ demee gars yi dañ leen ndax dañuy des fois dañuy def seen projet yoo xam ne ñoom dañuy bëgg a gaañ seen bopp pour après jiñ ko état bi mais ba ñu demee noo déglu ma gis nga l'état mm. du Sénégal mm. moo la gën a am information moom ko gën a am moo leen ko gën a am gis nga seen yi ñuy def nii monter ñoom seen i seen i piège pour bëgg cee daanu après jiñ ko état bi état am na information et l'état à le droit de protéger tous les citoyens pour leur déplacement personnellement ak de leur bien kon kooku du seetaan ay samba booy ay des gens yoo nga xam ni c'est des gens vertu de mensonge qui ont que leurs idées leurs yeux rivés vers un seul fauteuil le fauteuil du président de la république du noonu lañ ciy jotee. ñu génne ci boobu dugg ci procès bi amoon fan yi passé mooy diggante Mame Mbaye Niang nga xam ne Sonko fan yi sax ñu ngi waxaat ne ñu ngi koy yëngalaat. mais foofu problème waru fa am. le droit à parler c'est le droit qui a parlé nous sommes tous liés par le, par le, le, nos institutions plus précisément par le pouvoir judiciaire bi nga xam ni amut lu ci nit di ëppalee moromam procès la daf dañ Ousmane Sonko je dis bien dafa wax ni Mame Mbaye Niang moo def lii ak diif lii def ko cité nommément mais ma a une famille au Sénégal son papa nekk un une personnalité très respecté au Sénégal nekk kilifa def assemblée national ay mandat liggéey fa liggéey bu am solo muy doomu gor ñaari gor jur ko mu judd ñetteel leen am njaboot xaral rek am njaboot bi mu amee njaboot ñu tuumaal ko ci tele bi tuumaal ko ci rajo bi ay doomam di jàngi ñu leen koy xoole ay soxnaam di dem marché ainsi de suite ainsi de suite yaayam mais su amee courage moom mi ñu tuumaal ni damay porter plainte ki ma porter plainte na ma indil ay preuve su indee preuve yi mu leer nañ man fi ma toog dinaa tekki sama ndomba tànk danaa jébbal sama bopp yoon dem ci prison bi mais lu gën a rëy loolu au même moment yow mi ni li nga doon wax mu ngi ci sa téléphone mais yoon ni la kaay wan ko kaay wan ñu li loolu bu ko indi woon day arrangé sax yoon mais nga nekk ci mbedd mi layaam layaam yi nekk ci mbedd mi euh, fu ne nga daw fa mel ni béyu ndëpp comme yow nee woon nga ba ngay jóge Ziguinchor di ñëw ci say procès dem nga ca sa bàmmeelu papa ñaan tàggu nga sa yaay waaw mais ku def loolu kañ waaye sëñ bi demal wuy ji werante xuxaan tekki tubay kaay tekki sa tubéy wan ni nga lank ne duma ko tekki mais est-ce que Ousmane Sonko et plus sénégalais que ceux qui croupissent en prison pour les mêmes faits et les Est-ce que Ousmane Sonko est plus sénégalais que ñoom non est-ce que ceux qui ont eu gain de cause pour les mêmes faits qu'on les avait accusés son plus sénégalais que Mame Mbaye ba ñoom ñu war a am gain de cause Mame Mbaye waru ko am ñay tëdd ca kaso ba mais Ousmane Sonko est plus sénégalais que Madiambal Diagne Madiambal Diagne tëjuñu ko fi ci loolu alors quel est le problème parquet bi nga xamante ni tey mooy procureur gis ni li yoon atte foofu neexu ko mu interjecté appel est-ce que Mame Mbaye Niang mooy parquet non parce que c'est le procureur de la République Mame Mbaye Niang mais d'appel c'est pour tout le monde cour d'appel c'est pour tout le monde suñ la attee lu la neexul sañ nga dem ni lañ ma atte fee ma fii laa jëm si soo demee nag luñ la mën di wax nga te man li ma gën a bañ mooy nit koo xam ni loo wax tey bu subaa nga génn ci yow buñ la waxee nga ni reconnaître ma justice bi te boo amee problème ni porté naa plainte kan booy porté plainte ci ay jinne ngay dem di porté plainte wala ay rabu àll mais nag <laughs> Moussa Fall a ngi fi ak Antoine. non non xam nga yéen a takk non attention takk der yi dafa def lu am solo mooy ñoom bi ñu nee le 3 avril dañuy def seen marche ah, mais attention bi ñu tuumaa leen ay haut gradé de l'armée ñoom ñëw leen wax ni bàyyi leen mais ñoom ils ont parlé xam nga wax naa la sànq ne la les hommes passent et les institutions demeurent mais tey ji keneen ku fi nekkoon président de la république it mais armée bi dafay nekk pour le Sénégal armée maanaam il le garant de notre société kon du ñu bàyyi armée bi ak benn minuscule groupuscule de personnalité yoo xam ni sur 17 millions de sénégalais mais ñuy fowee réew mi le Sénégal compte presque 17 millions de sénégalais boo dee xool ñi nga xam ne ñooy acteurs politiques yi ëpp ñu 300000 mais dañuy bàyyi kon ces 300000 là xaw ma 300 di yàq Sénégal armée bi du ko nangu. beneen bi mooy jamono ji gis nañ diggante ki nga xam mooy Idriss Seck ak président Sall ba sax am na ay xibaar yu jamono yi tey gis nañ Yankhoba Diattara ay ci ay image yoo xam ne demoon na seeti ki nga xam mooy Idriss Seck diggante boobu est-ce que du mais xam nga Idrissa Seck ak parti politique bu tudd réew mi Bassirou gay ak parti bu mu bokk bu tudd LDR Yeesal bu président du Diagne Fada Idrissa bi muy ñëw biir coal ci biir coalition bi xaw ma lu ko indi xaw ma lu mu waxante kon bu demee ba leneen xew man waxuñu ma xaw ma du mën a def lu dul maandu ca mais nag tout en lançant un appel au président Idrissa Seck nga xam ni il n'est plus n'importe qui dans ce pays là Idrissa il n'est plus n'importe qui dans ce pays là Macky Sall idem c'est son frère kon li ma jàpp rek mooy lu mën di xew na dellu siwaat xelam moom par rapport ak yi ko nit ñi wax ay dugal post Facebook ay lii ay bind na ay wax na ni président indi na fi coupe d'Afrique est-ce que pare ngeen pour ànd ak man pour ñu jëli coupe du monde post yooyu yëpp na ko teg ne na àndaat ak frère am ñu bokk defar Sénégal ba 2024 jàll ba 2029 ak le président Macky Sall. kon yéen yaakaar ngeen ne 2024 bi kon kon mooy bokk nga ci ñi gis ne président Sall dafa war a waaw mais qu'est-ce que la constitution nous dit nul ne peut faire plus de deux mandats de cinq ans consécutifs. mais lu muy wax. mën nañ koo far pour mu liggéey mu bëgg a boole mel ni euh, euh, ak tama ak liggéey mënta ne. mais na engagement ban engagement la li muy def nii. gis nga la président Macky Sall. Ah. li nga xam ni moom la gëm. di ko dund pour le Sénégal. mooy li sénégalais doon xaar ci moom. bi yeneen quatre candidats yi def joxe seen programme sénégalais ñu rejeté ko consommé programme président Macky Sall y avait cinq candidats il ne faut pas oublier les sénégalais on consommé le programme di candidat Macky Sall. kon yow d'accord mu nekk sa mais attention. réew moo xam ne tey jii diggu mën la fii ak décembre pétrole gaz te ku ne xam ne ni pétrole gaz Sénégal am ko mu ngi mel ni Sénégal dafa nekk benn prairie. maanaam ab désert non attention de gis nga cerno xam nga da woor ba ngoon lekk sa croissant yu baax naan sa jus yu baax dóor sa benn foxya bu baax am sa jàmm toog fii di enregistré man sa émission mais ci jamono boobu am na réew yoo xam ni dóor bali fital ya tax na mënuñoo woor kon jàmm waral lii ñu mën a am tey ki nga xam ne nag il na fekk que prôner la paix pour le Sénégal prôner la paix pour l'Afrique kooku duñ ko jëndee koo xam ni vraiment amul benn culture culture étatique amul benn diplomatie amul benn stabilité gis nga am réew on ne gère pas ça avec de la violence on gère un pays ak non parce que y a d'autres attention gis nga y a d'autres personnalités qui sont beaucoup plus arrogantes que Sonko dans leur kuréel la hmm? pour mu leer attention c'est-à-dire Sonko ñoom dañ koo nax de am na ci ñoo xam ne tey bu Sonko li mu nekk nii neex na leen de ñu naan du bokkak ak yooyu pour que ñu wan ko ni ko ñu jigee nañ la alors voilà pour demee moom xam na ni du bokk parce que am na lu ko tënk ba pare. yoon tënk na ko. parce que déjà am na procès yeneen yu koy xaar xamaguñu lu fa lu fay jóge loolu bu yàlla dogalee nag loola am parce que dama ni am na lu ko tënk li ko tënk mooy tant que procès am ak Adji Sarr taxawagut mais le professeur Adji Sarr lan mooy tax du wax. ah mais wax. waaw est ce que yow génn barki démb ndaw si no bis bu set ñu rey ko fu deewul. ndaw si da nga koo dégg mu wax ci rajo dama ni ndax da nga koo suivre yow. yow seetaan nga ko. ci làmmeñam man gisuma ko kon. man gisuma ko mais daal moom am na lu ko tënk. procès hmm. ak Mambay Niang jàll na. yoon def na ca lam ca war a def nañ ko ca defee tey dégg naa ay xawma ndax am naa naam amul mais ay avocat am doon nañ def sorti alors hmm, peut-être que dinañ wax mais li ma gëm man personnellement mooy que ni yoon ñëpp la fi nekkal et on ne doit pas utiliser sa Sénégal là pour benn justice boo nga xam ni day favorable ñi du favorable la ñi Adji Sarr elle est sénégalaise elle a parfaitement raison man je suis d'accord bu fekkee wax na ko ma elle a raison parce que comme dafa porté woon plainte am ay jigéen ñoo xam ne dañ porté woon plainte pour les mêmes faits ñoom ñu àtte leen lañ ca war a def ñu def ko mais nañ ko àtte moom it. parce que dinaa la xamal lenn ndax aji it attention aji peut bel et bien aller en prison. Hmm. aji Sarr hmm. elle peut bel et bien aller en prison parce que lii mu wax ni ni moom la ko def ba ay nit faatu ci appel yi ngoor si doon def attention bis bu demee procès dëgg jibewul ci moom. na ko leer ni Sénégal yëpp dinañ ko porter plainte moom Adji Sarr parce que donc moom dana nekk dana consommer station Total yi ñu taal dana consommer Auchan yi ñu taal mais aussi elle va pour ceux qui sont morts pour les ces morts là Adji dina payer set det la ok jërëjëf pour mu leer Bassirou xam naa dañuy wàcc léegi nag fii ci Touba maanaam président Sall ak Touba ay réalisation gis nañ bërki démb sax yaa ngi def ab tournée euh, di nuyu passage. Euh, père Modou Fall. Mm-hmm. waay ma di dem ci ñaari caniveau yoo xam ne rek moom ci dëkk bi ci mbedd yi. Mm-hmm. taw waa xam nga le président Macky Sall. Mm-hmm. chance su Touba la. oui. gis nga le président Abdoulaye Wade a beaucoup fait pour Touba mais bu ñu fàtte ni ba muy def pour Touba la ma jiitaloon ci bi may wax. ni bu ñu fàtte ni président Macky Sall bi ko Abdoulaye nommé 2007 comme premier ministre ba léegi la tàmbalee liggéey Sénégal bul fàtte loolu te jamono boobu chantier Touba ca la bokk te Macky Sall moo ko moo ko moo ko piloté woon mais ngi ñëwaat encore ci période bi Macky xoolal hôpital Bijou bi mu ñu jox hôpital Cheikhul Khadim nga xam ne au début ñu bëri dañ ko doon critiquer. wa non niveau 3 la jox la ñu jox de. mais ba mu koy jox Kaffrine. xoolal vision bi mu amoon. da ko defal waa kafrin même pas un an. accident bu tragique am fa. muy 6 kilos. ñuy ziare di jaale ña fa ñàkk seen bakken ñëpp. mais imaginez bu fekkante ni woon moom gisul woon ni foofu corridor la. ba mu def fa hôpital ba. mais xoolal ña ñu sauvé doon leen yóbbu ci hôpital ba. mais kon. dina moor yi dina gën a bari mais noonu la ko defee feneen Touba un pays dans un pays mu def fi bijou bijou bu toll ne nga dem hôpital Jannatul Mahwa mu defal leen beneen hôpital beneen centre de santé bu ne ci biir boo xamante ni les maladies épidémiologiques lay jël nga ñëw ci wàllu assainissement bi te assainissement dafa nekk investissement boo xam dafa ingrat parce que du luy feeñ du looy gis lu ñuy suul la <laughs> mais ñun ñu dëkk Ngiraneen ñun nous sommes vraiment très content parce que daaw ñeenti ñetti at ci ginnaaw ku ne gis na ni Ngiraaneen était devenu impraticable kenn mënatu fi dugg ñun on était complètement déconnecté de la ville parce que lan la ndox mi nangu na suñu secteur yëpp am ci ñoo xam ne jusqu'à présent mënuñu dellu ci seeni kër pour la simple raison que ni ndox mi jël na ko mais tey bu ñu amee chance le ministre Antoine Diome ñëw fi ànd ak Mamour Diallo directeur général de l'ONAS ñu koy remercier au passage parce que yàgg nañu bëgg lii mais moom en tant que directeur de l'ONAS de l'ONAS mais bi mu ñëwee def les visites mais deful deux mois tey jii chantier yi wax nga ko ñun defal nañ suñ bopp ay visites de chantier parce que sëñ Abdoulaye da daan wax naan ku la defal lu baax soo ko waxulee buy lim ay noomam sañ na la ca boole. comme ñun ñoo doon yuuxu naan ngiraane ndox mi da koo nangu demoon nañ ba ñun ñu tudde woon suñu bopp les masaaruwaa de Touba <laughs> tey jii bu ñu demee ba am lee président Macky Sall dégagé benn enveloppe bu 23 milliards ci benn programme d'urgence ngiraa neen teel cee gis boppam ngir defal nañ leen kanaal euh, bu toll ne mais dañuy sant yàlla. mais gis ngeen ni yow ndox kon jafe-jafe euh, danañ danañ ko encouragé ci li mu nekk félicitations directeur Mamadou Mamour jàlloo mais aussi danañ ko wan ne ko ku ñu lebal ker ñu fayee la guddi ñun. parce que dinañ laxasaayu danañ ànd ak moom danañ ko soutenir. ci problème yooyu ngay wax ngiraan ne ñu ngi fi doon dégg ay coow rawatina sa combat ak marché bi sa marché bi fu mu waaw foofu moom. <laughs> combat vraiment la marché de Ngiraaneen moom <laughs> ñun wax dëgg président xëy na di nga jot ci vidéo bi ñu ngi ñaan ngir yàlla ak jëmmi sëriñ Touba nga dimbali ñu marché Ngiraaneen bi àgg ndax marché bi Serigne Saliou Mbacke moo joxe woon ndigal pour ñu def ko fi tout récemment gis nga ñu ngi def déguerpissement gone yi ñu ngi nii nekk ci mbedd yi marchand ambulant amatuñu fu ñu lal te lépp it defarug dëkk bi la ndax sëñ Muntaxa moo ko digle te day assainir Touba mais tey marché Ngiraaneen bii bu àggee dana doon deuxième marché boo xam ne dana mën a absorber tout ce beau monde marché Ngiraaneen bi avant ñu koy daaneel ñu ci bëri dañ fi daan yaxantu ginnaaw bu ñu ko daaneelee pour doon ko tabaxaat ci la xale yu bari demee Dakar yaa ngi wax déguerpissement des marchands ambulants de Dakar mais ñu bari ñu ne marchand ambulant foofu Dakar Ngiraaneen gi lañ jóge bu ñu fàtte nit ñu bari ñu dem ci géej gi ci jamono bi Barça wala Barsaq amee gone yu bari ngiraaneen gi lañ ne woon daan jaay ñu ci bari seen bàmmeelañ ci géej gi tey président li ñu ngir yàlla ak jëmi rasulullaay nga sagale ñu ñun bijou bii di ngiraaneen nga jàppale ñu ci wax ci pour ñu mën ko àggali ñu ngi remercier baax di féliciter aussi le ministre du commerce ñëw na fi vraiment gis na ko muy Abdou Karim Fofana ànd na fekk yaay faatu Diagne ñëw nañu gis nañu ànd nañ ak le promoteur Mass Sall ngiraaneen gépp teeru leen ñu bëgg nag nga dimbali ñu ngir yàlla. xam ne du ngiraaneen rek. Euh, ñëw mais xam nga xam nga état aussi ni muy liggéey ci ay projet ñoom ñoo ko xam man xawuma ko mais dinañ ci remercier daal le ministre Abdou Karim Fofana ak équipe yi ndax ñëw nañ fi def nañ fi si technique te loolu ak yëg-yëg la te leer nañu ni. wax rendre nañ compte président kon ñun président rek la ñuy ñaan mu dimbali ñu ngir yàlla ci marché ngiraaneen bii marché maam astawaalo bi ndax kat du ngiraaneen rek Touba gépp fi mën a jariñu ndax yaa quartier maam jaara quartier sëñ fàllu jumaada quartier njuufeeni quartier sëñ murtala kër ñang ñaari pëna tali bu bees daaru marnaan mais Touba gépp fi daan ñëw di fi daan seen doole tey ji ñoom ñëpp pour alléger seen panier da nga leen di defaral marché bi la ñuy jëlee ay charrette wala ay oto di dem ba marché lañ cay paas aller retour mais xajaat na ci pañe de la ménagère bi parce que xam nañ ni moom il est il il est très soucieux du panier de la ménagère ndax gis nañ la réduction des denrées de première nécessité lim ci def gis nañ la réduction du loyer lim ci def tey ji kon li ko dese ak ñun mooy le marché de Ngiraneen bu ko defee daal vraiment danañu mën a yombalal liggéey bi xam nañu nag xëy na dana jot bu ci jotee daal. ñun li ñu koy ñaan rek mooy jàppale Ngiraaneen mais aussi mu yabal ay nit ndax ñu ngi jëmaat ci nawet pour ñu ñëw jàppale daara yi nga xam ni sëriñ daara yi seen dongo yi amuñu sax ay toilettes yu ñu suturloo vraiment bu ñu sañoon daal ñu ñëw waxtaan ak ñi nga xam ñoo fi nekk quartier bu ne ña fa nekk di ay leader génne jafe-jafe fa ne bu ko defee dinañ mën a teg benn slogan boo xam ne mais que chacun gagne chez lui et on gagne partout pour que ñu mën a gagné nag il nous faut vraiment des moyens. surtout foofu laa il nous faut des moyens. Touba président Sall gis nañu ne pëcc xoo bi dafa bëri mbëkkante bi ah, xamul e, e, xam nga ñun coalition Benno Bokk Yaakaar la ñuy wax parce que ñun dañoo bokk ci ab parti politique mu tudd LDR Yeesal moom président Macky Sall yor APR ñu ñu def benn tontine ñun ñëpp ku nekk indi li nga am ñu daje pour boole ko pour mën a defar Sénégal. pëccëxoo gi nag am na c'est mais ci partem non ci partem la il faut que moom mu wax ak njabootam ñu tëgg ndëpp ci seen biiru njaboot ndax ñun amuñu problème mais tey jii bari na loo xam ne day am mais partis alliés dañ ciy souffrir man je suis le coordonnateur des partis de Touba mais les partis alliés des fois dañuy souffrir parce que lañ la des fois dañ naan la dem leen ci seen leader mais loo xam ne ñun ñëpp bu ñu rootee fenn lañ koy sotti mais dama jàpp ni bu ñuy def te moom moom xam ni moom mooy euh, euh, le noyau dur moom mooy le cœur de tout ce que nous moom lañ koy versel mais kon mu dooleel ñu wàññiw dara. yéen ñi nekk département Mbacké kenn xamul ku dëgg la li nga wax moom man nangu naa ko armée mexicaine la kenn xamul ku jiitu kenn xamul ku ci topp kenn ku nekk yaa ngi ci sa kii di def la ngay te am na ci ñoo xam ni il faut que mu leer ko moom président dañ koy nax y a des gens yoo nga xam ni teg nañ fii tànk teg nañ fee tànk. des tricheurs te bala ma ko woon mën a xam tey jii yàlla na yeexoon ñu dem élection du naam sax du am parce que nit ñi bëgg nañ président Macky Sall duñ ko may muy dem ay deuxième tour mais bu amoon ba ñu dem deuxième tour ca la xam ne bari na ñoo xam ne c'est des traîtres comme ni ko Massaly waxee ñu ngi ci biir coalition bi mais c'est des traîtres ñu ngi jariñoo alalam di jariñoo ay pouvoiram di jariñoo décret te amalatuñ ko benn njariñ ce qui n'est pas normal lan ngeen di proposé ci rawatina li ñu li dama ni li ñuy proposé ñun mooy que ñu gën a ubbiwaat waxtaan yi teyit mu gën a xool ñi muy dooleel Touba gi nag moom amul kum fi dooleel ñoo xam ne dooleel ñi ci des nag di ay leader bari nag ñoo xam ne ay leader la ñu ñuy luwee rek dañ leen di loué bu élection jotee ñu loué leen dooleel leen buñ paree ka leen loué woon dem yoonam loolu c'est pas normal il faut que ñu dooleel ñi nga xam ne ñoo fi nekk des résidents nga xam ne ñoom ñu ngi ci ngénte yi ñu ngi ci ceet yi ñu ngi ci dëj yi ñu ngi ci social yi mais ñu dooleel leen na ñoo xam ne tey jii au saa bu élection jotee ca ngoon nga noppi nga leen teg bët ci dëkk bi xam nga am na ay booy yu ko doon wax à la permanence nationale de l'APR à Dakar ba Marème Faye Sall jël kàddu wax li mu wax li ko booy doon wax c'est la triste réalité dëgg gu wër péng la ko xale yi wax. am na ñoo xam ne c'est des responsables yoo xam ni au soir des élections ak élection mën a doon déserté nañ dëkk bi ñoom dem seen yoon dootoo ci teg kenn bët avec ça nga bëgg nag sawaay bu élection jotee nit ñi ànd ak yow mënul nekk. bi ngeen di gis fële fële ci àll bi di di di ay xale yoo xam ne ni kenn xamu leen woon wala xale am na ci ñoo xam ne sax seen i financement. Mhm. duñ ko bañ ñun. parce que c'est des bailleurs yoo xam ne ñoom defuñu politique mais sañ nañoo gis ni kii kat war nañ ko mën a jàppale pour ñu defar Sénégal ñu dugal ci seen alal waxuma ñooñu mais am na ci ñoo xam ne dañuy tuddoo responsable politique nga xam ne politique nga leen di gis alors que amuñu fi ñaari nit. mooy comme ay Samuel Sarr. non waxuma non attends Samuel Sarr c'est un c'est un politicien. qui gère des responsabilités mais am du baasam mais am na droit ñëw Samuel jàmbaar la parce que wax dëgg yàlla muy moom muy Antoine ba ci ñoom Fallou Mbacké transitaire ak ñeneen ñoo xamante ni tey jii ñu ngi woon ci yëf yi mais dañ doon accompagner nit ñi mais ñoom dañu jël seen wërsëg di ko jox ay doomu aadama mais ñañ koy jox ñooy dem làqatu ci ginnaaw pantre yi jël ko def ko ci seen compte banque bu ñu jugee dajale fee ñetti nit ñeenti nit def ñaari caravane suñ paree ëpp génn nañ daal di demaat ni wala la ma def tuwaa defuñu fi dara amuñu fi juróomi barki sëñ Touba maa la wax li mais bu dee ñooñu ngay wax les Antoine jom les Samuel Sarr les Fallou Mbacké transitaire ak ñeneen ñi mel ni ñoom ñi nga xam ni ñoom c'est des hommes d'affaires ndax am na ci man kilifa Mbacké Mbacké goo xam ne c'est un homme d'affaires kooruk daaw jéeg mais yëkkati ne 3 millions de francs jox ma man maa yóbbu ci benn quartier périphérique 1 kilomètre 500 ci wàllu adduction d'eau ba pare ni ma nag boo tuddee sama tur baalu ma la ko àdduna ak àllaaxira ab Mbacké Mbacké nag bu ma waxee loolu du ma tudd te kilifa la ci dëkk bi mais ñooñu am nañ amal nañ njariñ dëkk bi quartier ba ma ko yóbbu ngi tudd Ngiraaneen deux ca Ndindi xëy na danañ ko dégg ñoom man maa fa yóbbu ndox ma un kilomètre cinq cent adduction do weeru koor te ñoom mosuñu ko yaakaar. tey lan ngay tàggoo ci li nga xam ne rawatina actualité yi ñuy wax nii yépp dugg ce que bu am bu amee leneen loo xam ne war xanaa en gros di sant ñëpp di gërëm ñëpp comme ni ma ko waxee aussi di ñaanal la. umma islamique bi ñu comme weeru koor yi niñ ci duggee ci jàmm ñu koor ko ci jàmm ak salaam suñu borom faxasal ñu suñuy bàkkaar ubbi ñu ay bunti xéewal lu ñu dina lu ñu ñaan yàlla na ko suñu borom def ay xéewal te ren ji ñu gis ni euh, alors dañu tombe ak chrétiens yi koor muy carême bi kon nga xam ne dialogue islamo-chrétien suñu borom sax mu ngi ñuy dugalante ndax ñoom bi ñuy am presque dix jours voire quinze ñun ci lañ song suñu koor tey ñooy woorandoo ñoom ñu leen di ñaanal bon fin de carême di fa remercier aussi suma président le président Modou Diagne Fada ci engagement am courage pour le Sénégal taxawaayam pour le Sénégal ku ne gis na ni Sonacos gi ko jox comme directeur général jamono biñ ko koy jox <laughs> mais joxuñu ko une usine dañ ko joxoon benn affaire noonu ne ko ayca mu ngi noonu mais son courage son engagement pour le Sénégal sa détermination wane na ko ba mu mat sëkk ba gis ngeen tey ji bien vrai que ren ku ne xam na ni euh, jafe-jafe am na ci wàllu gerte bi parce que nawet bi ni mu demee la ak euh, vraiment gerte gi mais ku ne gis na engagement bi mu ci def ak taxawaay bu mat sëkk bi mu ci def kooku c'est un c'est un homme d'État c'est un véritable républicain c'est ça loolu mooy républicain da ngay assumer li nga nekk pare pour jàkkarlook ñi xam ni ñoom ñoo bëgg a faagaagal li nga xam ne tey njariñul réew mi la président Modou Diagne Fada foofu la nekk donc ñu koy féliciter di féliciter aussi ak lancer un appel parce que euh, sa jeunesse nationale mooy FGR bi les jeunes euh, de LDR au niveau national donc dinañ fi ñëw en tournée euh, demain soir la ñuy fanaan si samedi ba dimanche ñu ngi fi pour gën a massifier base bi mais aussi pour comme ñu ngi ci biir benn Bokk Yaakaar kuy massifier base mais lépp yaa ngi liggéey pour le compte Benno Bokk Yaakaar donc kon ñu ngi lancer un appel à la population pour que ñëpp ubbi bunt yi xaar ndawi président Modou jaañ Fada ndawi LDR Yeesal laay wax pas le président parce que le président il est le secrétaire général du parti mais ñun ñëpp ñoo ko bokk y a un jeune Doudou Diouf moom ba waxee mu ni bu ñu demee congrès damay doon candidat pour jële fi Modou Diagne Fada donc nga xam ni euh, foofu parti la boo xam ni dafa am démocratie alors donc ci démocratie boobu sax ci lay ñëw ndax nous sommes dans un pays démocratique mais trop de démocratie sa tue la démocratie trop de démocratie ça tue la démocratie mais trop de liberté également aussi ça tu la liberté nekk dans un pays démocratique nekk dans une démocratie warul tax lu jug nga ni dama ko war a def par force parce que nous sommes dans une démocratie mais le président Macky Sall wul une république le président Macky Sall gère une république et une république on la gère avec fermeté, on la gère avec courage, on la gère avec engagement et détermination. Parce que demain, c'est lui qui va rendre compte. Donc, Dubaï démocratie, ak nit ñi koy torpiller, mais du Dubaï république bi ak ces gens la qui veulent transformer la république en rue publique. Mais comme ni ma ko waxee woon, l'armée a un général, le général Moussa Fall, il est là. C'est un bon parler, sama xam naa sama dongal ndax maay Mais également aussi il a Antoine Diome qui est là. un jeune ministre de l'intérieur <laughs> voilà ayca comme ñoom nee nañu bon dañuy marche kenn mënuñu ko tee def dañuy lii ah ayca bismillah <laughs> ayca donc ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp euh, di lancer woon un appel à l'unité di lancer un appel ci sama frères yi sama ñëpp sœurs yi ñu génn dem bindu ji massivement daas fanaanal le moment venu la candidature du président Macky Sall bu ko conseil constitutionnel validé ñëpp dem voteel ko pour que Sénégal mën a jëm à bon port pour que suñu pétrole bi suñu gaz bi ñi nga xam ne dañoo xiif duñ ko gains ñun yoruñu lu kenn di gains ñun li ñu yor réew mi moo tax ñu yor ko kon danañ ko gérer ba mat sëkk ak courage maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ba beneen yoon.